waaw ci li ma ci mën a mën a wóyoo daal réforme comme ni ko tubaab di waxee mooy am na benn pàcc boo xam ne ko tëb parce que li séeréer di wax néegi lañ ñun ay borom rab lañu te rab bi moom te kenn lañuy ciblé ci ci ci ci ci mboole mbooleem doomu néegu ndey bi topp ko te man lañu topp ba mu ko defee man mën naa xam ne sama xam bu njëkk bi ci rab laa ko tudd li ci mujj nag dem ci alxuraan kooku moom dama xam ne rek may yàlla moo xam ne yàlla mu ma ko baax kon su ma la dégloo mhm. kon yow sa liggéey mhm. dafay sukkandiku ci ci rab mhm. benn wàll bi war genn wàll bi sukkandiku ci alxuraan kon daal teew su ma la gën a déggaat sa xam-xam dafa nekk ci rab waaw nekk ci alxuraan waaw léegi ci li ma la mënoon tontu xam nga ñun islam bi moo ñu xëyee gan ndax islam dafa dindi complètement aada teg ko fële ñu bëggoo ñu ànd ak alxuraan mën naa ne côté rab bi parce mën naa wax ni dama ko tuub ndax alxuraan seet naa boo xam ne wax dëgg yàlla moo fi nekk ñu jullit lu ñu bëgg ci alxuraan muy si te itam daa mën naa ne xam-xamu rab bi moom am naa ko mën naa ko mais dama ko tuub jàpp ci am xam-xamu alxuraan yow am xamu alxuraan bi may def itam may yàlla la ci ndax lu ci gis def moom gis naa yu sama mën mën may kattanu yàlla salaamaaleykum salaamaaleykum waa Lu Xew TV franchement kontaan nañ trop trop trop trop trop trop seen analyse ci maîtresse d'un homme marié waaw parce que saa su ne man su ma seetaan ba pare damay ñëw jàpp damay ñëw euh, téléchargé ko téléchargé analyse yi déglu ko franchement da nga ciy gis ay waxta wax yu neex franchement franchement li ngeen di liggéey rafet na trop rafet na trop waaw léegi nag man man moom sama xel bu gàtt ci euh, tey vingt 27 bi commencement bi mooy fi ñeen naan laala dafay kenn xamul loo dafay dof doflu wala dafa dof man je pense bien que laal la day dof doflu. te affaire yu liggéey bi tamit du question ni que dañoo liggéey dañoo liggéey dañ koo liggéey mais dama bë dama yaakaar ni dafa bëgg euh, Cheikh xam ni Cheikh dafa bëgg euh, ñaaw njottuloo Cheikh foog ni moom Marème da koo liggéey pour mu takk ko man je pense que loolu la bëgg loolu boobu la bëgg a su ko defee Cheikh mun a bàyyi Cheikh mun a bañ a demati te xam naa ni ak laala ni mu kiiwee nii di dof loo nii gëm naa ni Cheikh dootul amati jotu Marème parce que nii nii rek da ngay xool euh, ci kii bi lune de miel bi Marème mi ngi jàppan mi ngi mi ngi douté wu mi ngi inquiété wu pour euh, euh, pour Cheikh mais xamul lan moo xew te lii rek wan ne leen ne que instant bi Cheikh gëw ma ni mu dem. gëw ma ni que mu mu kii ci Marème gëw ma mu gaaw a aye ci Marème parce que lii kii di def nii geste bi rôle bii di kii di jouer instant bi dina ko troubler te man je pense que nag sama sama réaction doo donc laay joxe sama xalaat waa sama avis mooy que man je pense kii laal la day dof doflu day dof doflu pour que cheikh mun a bañ a ayeeti fee bañ a ayeeti pour que cheikh mun a bañ a demati ci marem en plus muy muy duteloo cheikh pour foog ni que marem da koo liggéey da leen liggéey ñoom ñaar ñëpp merci beaucoup loolu laa ci amoon pour lu ma wax rek waaw maa ngi jéggalu nag. salaamaaleykum sëñ bi naa la ci loo nekk naka euh, ma yaa maa ngi ziar di la màggal di la ndokkeel di la wax ne bu ñu naka mu nag bàyyi ci moo gis naa say analyser am na solo trop dama ko yàgg si bu mais tey dama ne woon faaw ma ajouté numéro bi commentaire bi ma ne woon tey faaw mu commentaire bi ndaxte damay gis ngay def ay analyse yu am solo ndax li def si wax trop ci série bi day tax ñu gën a comprendre ñun ñi nga xam ne ñooy seetaan waaw man sama analyse ak li ma ci wax ci diggante laala ak Cheikh mooy Cheikh moo nekkul ci yoon am na droit takk ba quatre femmes kenn terewu ko. mais nag day tege ci yoon danga koy teg ci yoon ndaxte tey ji sa jabar su fekkente ne yow tey dangaa bëgg dangaa gis benn jigéen nga bëggante ak moom te da ngay jéeg-jéeg wax ko ko mais da ngay comp da ngay waxtaan ak moom daal te xam ne jigéen moom matul ñun yéen a ñuy mottali daal su fekkente ne jigéen tey dafa mat kenn du ko muur guddi di ko yóbbu kër kon dañ koy muur bëccëgu ndara kàmm di ko yóbbu mais nag dafa dafa dafa demee noo xamante ne si daal dañuy comprendre ante ndaxte tey jii yow sa jabar nekk nga ak moom xëy xëy ñëw ni ko dama takk beneen femme mën na dof mbaa mu perturbé wu mbaa leneen fekk ko ci mbaa mu dof mbaa mu def jékki-jékki dóor la dara te du ko yëg kon ñun góor ñi nga xamante ne si ne ñooy jigéen ñi nañuy nañuy comprendre jigéen ñi te jigéen ñi aussi tamit ñuy ànd ak seen xel ndax laal la comme ça lim def ni lésion bu rëy la jël paaka bi ne ko dama la war a jam mais jaroo ko sax wax na dëgg am na genre góor ñoo xam ne. jël ñu yàqal seen àddina kon nag sëñ bi boo gisee sama vocal maa ngi jégalu lu ci jub ñu xam ne yàlla la lu ci dëng tamit ñu xamante si ni njuumteg doomu aadama ak mu ma tàddee. asalaamaaleykum wa rahmatulah wàllu xew TV ah, seen émission yi ngeen di def am na solo am na solo trop trop trop macha allah am na solo neex ki fu ngeen ko takk rek weesu na ko waaw man li muy sama xalaat ci série bi. mooy Cheikh Diagne ni mu annoncé laal takk tactique yi ko woon a annoncé noonu waroon naa am beneen euh, facette bu mu waxee moom bu dul xëy-xëy rek ne ko takk naa Marème parce que jigéen ñi ñëpp a koo xëy ko takkal naa la wujju moom dina am benn euh, réagir bu mu def ci instant bi laala nag nii mu def nii nii nii rek la mën def nii moom parce que bu ko rayoon lim wax da koy dal mooy day dem ci kaso bi heureusement am na xel ba ko jamu ko mer na ànd na ak sago mais daal góor ñi ñoo war a seetal seen bopp tamit si ni ñuy annoncé buñ takkaatee beneen jabar mais moom seen euh, série bi am na solo torop ñu ngi leen siy ñaanal rek ngeen gis ci lu kawe seen jortu si barke Seydina Mohamed. salaamaaleykum yéen waa Lu Xew TV nuyu naa leen jaar naa leen. waaw di commentaire ci matrice ci série boobu noonu mais série bi sama premier jàngat muy seex dafa teer a takk mareem parce que su takkee mareem bi film yi daanaka amatul sens daal moom mareem dañoo doon doxal ba ci kanam mu dookaa takk deuxième mooy Lalla ah def na seex doo takk kii lu tax seex góor la te laala moo si woon ak Cheikh nekk am nga droit takk takk carte kon Cheikh su takkee deuxième waru kaa wax wax ci ñaaw daal mais te laala dafa def benn kii ba am solo mooy bi Cheikh deuxième takkee deuxième fois ba annoncé ko ko mu ko dama laa war a rey mu ne ko jël ko sax parce que dañ may tëj kaso loolu jigéen ñëpp dañ see jël exemple loolu am na solo mais si ñëpp benn jabar daal moo wut beneen mooy euh, gis naa ne. joor xaritu jabaru kii la biram te gis naa ne joor ci ci dañuy épisode gis naa ne joor ak biram dinañ nekk kon léegi joor ak biram su nekkee est-ce que kon léegi xarit amati na parce que joor xel mu wërta nekk sax ci biram parce que biram ak joor ay xarit lan mais série moom gis naa ne change dem na pare daal parce que Cheikh dafa teel a marié kee daal waaw dama bëggoon participer ci émission bi maîtresse d'un homme marié lii dal lal la man dal na ma en 2010 max ma jëkkër ñu tàggoo maa ngi nekk France yàlla def ak ñaari doom ba léegi nii maa ngi ndànk ndànk maay récupérer sama bopp waaw waaye man sama sama jëkkër dafa dem takk ñaareel boo xamante ne ne joolaa la sama mbindaan man dóoruma sama jëkkër saaguma ko damaa jël samay bagage maag samay doom ñu dem voilà man fa la yàqee sama àdduna ba tey waaye damaa teg lépp nag si loxo yàlla laa ko tegoon lépp si loxo yàlla laa ko teg ba fi ma waxeeg ak yow nii voilà yàgg naa bëgg a participer si euh, seen émission bi am na solo trop ndax film bi danga koy seetaan da nga si gis sa bopp bu baax voilà danga si gis sa bopp bu baax surtout diggante laal la ak Seex ni Seex di def di dem di dem di di def ay affaire am si suuf moom ak xale bu jigéen boobu xam nga loolu yëpp man dund naa ko ak sama jëkkër waaw loolu yëpp dund sama jëkkër ma koy muñ ma dem ba à la fin man dama ko ne euh, feebar yi mënuma ko te en plus kii vraiment man duma duma duma wujjanteeg ak kii waaw su ma laajoon amul problème voilà mais laajuma dafa dem def lu ko neex mu ñëw man di ma gis sama bagage samay doom ñu dem waaw mais nag moom sama jëkkër defe naa léegi nii nii ma wax ak yow nii rëccu na ko mais xamul nu muy def te man nag pare naa si yàgg na yàgg na voilà boobu ba léegi nag maa ngi toog di sant yàlla voilà sant suñu borom bu baax. loolu amee li li ngay wax li dal seen li doon dal seen doom bi man boobu sama doom bi góor bi mi ngi am mi ngi am cinq ans suma ans doom bu góor bi suma doom bu jigéen bi mi ngi am lan mi ngi am onze ans dégg nga xale yi comprendre ñu dara ñu naan ma yaay lii la la li la la loolu yëpp ma muñ ko ndax lan jigéen moom daal góor ñi daal ñoom war nañu soppi seen doxin ndax lii dafa ñaaw man man dof naa si dof dof naa si voilà mu ñoo def li muy def si kër gi voilà def ñu yàq yàq ñun ñëpp maag sama jëkkër dañoo jëndoon kër di ko tabax sali dégg nga dëkk bi ñuy wax ngërin voilà ma ne ah léegi nag man dama laa wóolu yu man man man jigéen laa dama war a yore kër gi yow dama nga def defaral ñu tabax bi mu gis kooku noonu def ko li mu ciy def voilà moom daal nañu wàññi lii nañu bàyyi lii waraate baaxul